jaar di leen nuyu ci sa bi di di ko yow te ñaan bu njëriñ li nga jàmm bokk ko nit ñi ah noonu nag noo ngi lay sant di la gërëm di la xamal ne <coughs> jóg sax yomb ma waaye nag bi nga ma ko waxee rek dama ne mënu ma ñàkk ñëw di nuyu sa sëriñ si ma fi dajeel ndax lii rek doy na seere sa tur di yóbbaale la fàllu galas foo ko xam ne jël nga sa turandoo wala lu bari te ndaje murit moo daje mu ne bu ñu ne fàllu dégg leen fàllu galas loola ndaje ma dana am xorom loolu moom sëñ bi def na ko ci yow sa turóoni def na ko ci yow te it am nga ñaanuk sëriñ Saliou kon nag noo ngi lay ñaanal di la sant di la gërëm te di la ñaanal mu yàgg lool te sax te di la xamal ne day ah, xorom nga ci yoonu murit kon na nga xam ne faw nga gudd fan ndax yoon yoonu sëñ Tuubaa yi da képp koo xam ne xorom nga ca xam ne doo dem waaw da nga dem waaye du gaaw dana yàgg ñoo ngi lay ñaanal di la gërëm bu baax a baax ci barke Serigne Saliou. daanaka bu masaa ñëw ci sëñ bi ci man mi la daa jaar te yow xam nga ci dara ah moom way na ba daanaka ah, dafa dafa dafa yu bare bare bare yoo xam dox na ci diggante bi ndax ah, mën naa cee seere loo xam ne lii àdduna dana ko dégg tey dëgg lay doon bi yàlla dogalee mu aman loo xam ne lii ah, ci ay ci ci ci ci këram loo xam ne da jaaxal da ko wax sëñ bi sëñ bi ne man de euh, sëñ bii de teg na ma loo xam ne lii bu ma sañal lu ma teg loola sotti bu ma sañal lu ma teg loola sotti ba mu ba mu ko waxee mu ne ma waaw <coughs> lii mu ma teg sama gaañi koo defe ne moo ko ci man lii mu ma teg sama gaañi koo defee ne moo ko ci man ma ne ko sa gars yi de am na ci koo xam ne xam naa ne yaakaar naa ne ko waxee dana ko def mu ne ma kooku kum ma ne ko suñu Moussa lakkaram mu ne ma wol ma ko ma woo ko mu ne maa ngi maa ngi ndakaaru waaye xaar ma ci buntu bi léegi gis ma bi mu egsee daa egsi ma ko sëñ bi si suñu Moussa di egsi ne moom ah moom yoru yeggut ci yoon wi di ma ne ko nag nee nee na nee na bi xelam nekkee ci yow ba nga woo ko amatut benn soxla mu ne ma demal tijjil ko ba ma ko tijjilee maa ngi moom ak sëñ bi rek mu ne ko dafa am loo xam ne lii de dama laaj sëñ Moussa mi mu ne ma ah, dama ko def sama gars yi ku ko ci man ma ne ko sëñ Moussa la karam ndax xam naa boo ko waxee dana ko def moo tax ma woolu la ma bëgg na nga demal ma ca Kaolack la ay yëf lu yoo du ma ko dinaa ko am na jolo du ma ko wax mu ne ko mu ne ko damaa bëgg boo demee lu mën a xew daal moom na lijjanti ko sëñ Moussa ne ko sa ñaanal ma bu mu jógee kaala gi daa rot mu da ko wax ba noppi ci jóg de ma ne ko ah te nga te nga bàyyi mu ñaanal da nga doog a dem mun de pas ñëw mu ñaanal ko waaye ba mu jógee kaala gi daaro ne ko Moussa booy ba nga may ma añ dana lijjantiku te dinaa indaale ndam le ba mu demee fa saasa ay ay trois heures la ma woo na ma lépp lijjantiku na kooka sax fexe na ba mbiram dox na ba a mbir xefe feeñaan na ci ndax wax na ne dama bëgg nga indi ma ci sëñ bi ba bañ ko indi señ bi ba ba mu ñëwee indi ko si mu ne ko loolee de maa ko yónnee si Moustapha mu ne ko waaw moom de yow de sa bëgg-bëgg rek la doon déglu ginnaaw jaayal na ko ci la fas na maa ngi moom coloré te itam ñaanal ma moom dañ ko daal di ca fan yooyu rek ca dañ ko daal di yokk ab garaatam kon mel na ni euh, sëñ ma bi moom moom moom moom diggam ak sëñ ma roqee moom lu bare bare bare ba xam naa ko ci waaye nag lii seer na ci galas suñ fallu mi sax xam na ci lu bari ndax moom bu bu bu masaa ñëw sëñ bu bu bu ma ne bu ma ne bu ne bu ma ko ne mi ngi ci bunt bi rek daanaka day wax